ci loolu ki nga xam ni mooy borom xalima gi eh, ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala am na lu mu gis ci li nga xam ni mooy ñëw ci li war a xew ci élection yooyu le ci ñi nga xam ni ñooy aji eh, ñi nga xam ñoo samp seen dënd te ku nee yaakaar ni yaa ciy am dam moom nag am na lu mu ci xam ni yàlla baaxee na ko ci mu fas yéene ko wax ñi nga xam ni ñoo ñuy seetaan waaye jagleel ko ñi nga xam tamit ñooy politiciens yi ñuy seetaan ngir ñu xam mom li ko yàlla won ci li nga xamni mo jëm ci lolu mu nek mbirum baatin dañ koy laaj rek euh, borom khalima euh, gi soldaaru Serigne thialou election yi nga xamni ni suba ci dimanche ji dañ ko amal 31 juillet ci mbollem gox goxani nek ci rew euh, ban gis-gis nga ci am ak lan nga wax ni mom nga ci am comme ay tektal ngir jagleel ko ñu lay seetaan waaw bismillahir rahmanir rahim yaakaar naa ni moom politiciens yi moom ñëpp xam nañ kan mooy soldaaru Serigne Saliou yaakaar naa ni am na ñu ma ci jot a seet si sax ci lu yàggul dara avant lii di xew waa élection yi yaakaar naa ni suba la man nag yooyu moom dama cee kiiwul waaye sama lépp Serigne Saliou la waaye yaakaar naa ni ba élection doonee élection ba tey lu ma wax politicien maa lu ma wax ci élection rek lu am lay doon waaw kon yëf yi defe naa suba la te tey la samedi kon maanaam kàddu yi nga xamante ni dinaa ko yëkkati jëmale ko ci élection yi bëgg a wax ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waay politique yi xam naa daal moom élection yi suba bu neexee yàlla bu ñu yàlla defee tal may ak tala fekkee ban fekkee kook jàmm ndam li daal moom xam naa ni moom gëm naa ne buy xeej moom maa ñi ñi ñiy ëppale boo kii boog nu mu tuddati nu ñu koy waxee point xaw ma waaw ñi koy ëppale daal moom xam naa ni mhm. ci wàllu borom veer veer kii yooyu daal lay doon mhm. xaw ma mooy waa Sonko yi xaw ma mhm. waaw ñooñu daal am naa ci ñoom yaakaar ni ak kooku ñu naan Barthélemy Dias waaw damay tudd seeni tur ndax lu wér péng la waaw ndax mbirum baatin moom su moom kooku suñu borom moo ma ko dimbalee nekkul lu may làmbatu kooku maanaam maanaam dama koo judduwaale ñëwaale ko moom ci àdduna bi waa li may wax du nekk lu may làmbatu te du ma waxantu te du ma dugg ci lu ñàkk fayda te du ma wax lu ñàkk fayda waaye gëm naa ni suba insha allahu rabbi Sonko moom kenn du ko ëpp ndam ci affaire yi ak kooku ñu naan Barthélemy Diaz waaw insha allahu rabbi daal loolu moom luñ ma wan lu wér péng la bu subaa jàmm nag insha allahu rabbi moom lépp dina leer bu soobee yàlla loolu daal moom mooy lu wér nga xam ni soldaarub Serigne Saliou borom xalima gi gis na ko gis ku wér péng ñu wan ko ko mhm. waaw te du ci dellu ginnaaw maa ko wax fii ci RTV waaw sunu télé mhm. waaw kon loolu mu nekk euh, ay kàddu yoo xamante ni ji euh, jibal na ko te mbirum baatin la te loolu yàgg na ci jamono yàlla moo yor ay may mayam di ko jagleel ñi ko neex te loolu baatin la boo xamante ni ji xañ na li muy wax nii du waxantu parce que àdduna yëpp ñoo koy seetaan borom xam-xam ñu ngi koy seetaan waaye politiciens yi aussi ñu ngi koy seetaan Sénégal ñu ngi koy bàyyi xel diaspora bi tamit ñu ngi ñu jàkkaarloo moom di ko bàyyi xel kon euh, kàddu yu mel noonu bu jibee rek xañ na fa mu ko teg wér na lool te yaakaar naa ni soldaaru Serigne Saliou doo xantu kon ci loolu soldaaru Serigne Saliou li nga xam ne ba tey moo jëm ci xew-xewu yooyu gannaaw ba nga gisee li nga xam ni moo jëm ci la yàlla baaxee ni euh, carte bu verte boobu daal ñi ëpp ndam si la ñuy bokk ak ki nga xam ni mooy Barthélemy Dias te daanaka ñoom ñëpp ñoo bokk jëmukaay euh, ci loolu mën nga ñu wax yeneen tegtal yoo xam ne ji daal gis nga ko ci li nga xam ni mooy élection yi nga xam ni dañ ko amal suba ci diggante candidat yi waaye ci askan wi ak euh, ni nga xam ne noonu la war a tëddee ci kàttanu borom bi. Hmm. waaw bisimilahi rahmaani rahim ba tey rek maanaam élection yi moom mooy li ma la wax rek. Hmm. maanaam li ma ci gis moom mooy lu wér péng lu leer li nga xam ni ñooñu ma la wax ci mooy borom carte yu verte yi hmm. waaw loolu moom du lu may làmbatu. ndax démb rek la fi borom kart yu ñoom wàllu Moussa si xaw ma romb ma fii dama ko tàllal loxo reetaan xam la ma xam hmm. waaw ndax ndeysaan moom it sama waay damaa xam ni ndam li moom moom du leen jege moo tax hmm. waaye réew mi li ma leen di xamal mooy maanaam nañ dal suba kenn ku ne boo xëyee nga sangu ba set sol yëre yu set dem sànnil ki ngay sànnil delluwaat sa kër loolu rek mooy yëf yi ndax maanaam toll nañ ci réew mi moom ay naxanteeki sàcc moom amatu fi hmm. kon képp kuy dem di vote ji danga koy teg ci yoon génn dem vote ji ñibbisiwaat waye dal limay wax te diko waxat moy Sonko ak Barthélemy Dias xawma ni won sax ñom ñaara and waye dal gëm na ni ndam li moom ci ñom lay féete bu suba insha allah rabbi leneen li ci dess nak mom dañ koy baye ak sénégalais yi ak doomu adamay yi ndax man walum politique du sama yëf bu wéso ñu ñew ma ñaanal leen ma ñu woo ma téléphone ak man ma li lu melni ñu bëgg ma wax ak ñom ci jamm ak salam paré ci mbaaye mom yi mom waaw du sama yëf mhm. kon mi ngi nonu kaddu lolé ji ki di euh, borom khalima gi

51 05 78 111 51 05 wala à man ngeen ko 78 276 47 11 78 276 47 11 numéro Tigom 76 le 637 91 93 76 637 91 93 kon mi